maa ngi lay nuyu di la ziar di may euh, jël nuyoo bu sell rek euh, si loxo imam ratib imaam sama ndijaay sama ndijaayu bopp maa ngi lay nuyu di nuyu beneen ndijaay naa si dellu si Ablaye Matar Diop yaa sëriñ maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la exprimer tous mes respects xam nga fan nga ma may juyal nuyoo bu tedd di ko teg si kon fakon ñàkkoon rakk topp mag doom topp baay may nuyoo nuyoo bu tedd bépp ndomb tànk bu fi topp képp koo xamante ne rangoo nga cëru lébu maa ngi lay jox sa nuyoo waa Tànk ak Jalaaw waa Jandeer waa Jegeej douze penc yi fépp lébu nekk ci réew mi maa ngi lay nuyu di la ziar may jël nuyoo bu tedd di ko nuyu sama xarit monsieur de Wakam Samba Bathily Diallo maag moom ñoo bokk dëkk bu suñuy daa nekk mu Yoff monsieur le maire maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama xarit sama doomu ndey sama collègue monsieur le ministre la pêche Alioune Ndoye monsieur le lay nuyu di la réitérer mon attachement kulim juum gis naa ñëpp mais ngeen may ma ma nuyoo jigéenu lébu yi dafa am cër bu mag mag bu ku xam histoire lébu ma bëgg a waxee ñetti cër parce que temps ngi dem cëru coutume cëru doom wala jarbaat ak cëru li ma jamono jox mu jaar ci loxo le président Macky Sall ma koy remercier bu baax mën nañ ko wax parce que bu ñu nekkee yoof dañu am droit takk ndombu ndey ji te kenn du ko contesté ku gàtt xel xam ne Aïda Ndiaye Gningue moo jur ma am Sow Dieng mu jor Koura Dieng moo jur Aïda Ndiaye Gningue jur Mame Sow Dieng Aïda Ndiaye Gningue jur Mamadou Diop Mame Sow Dieng jur Awa Sylla mu jur ko bon dëkk mën naa takk ndomb ak ndey ji réew sa yof moo tax coutume bi moom la ñu waxe tey waxew ñu république coutume nag moo fi moo tax li ñu wax tey weer ko si coutume il est bon ñu documenter ko bu baax a baax a baax def un référendum un mémorandum validé teg ko si loxo yi ñu ko war a teg ñu jaaral ko fi ñu ko war a jaar pour que defee ñu am si li ñu war a am dafa am solo lool loolu la ñuy wax procédure bon dëgg maa ngi leen di féliciter si démarche bi incha allah validation bu amee ñun si suñu cër danañ si dox euh, lépp lu si war a dox mais coutume dafa am solo lool parce que tey si démb la jóge moo tax képp ku takk dem ndomb lebu rek dama lay gëm parce que nag ak lebu dafa neex ak lebu dafa neex bu may dégg maxu lebu muy way sama ndijaay ji sama gannaaw ba mu yàgg mu ne xool leen bopp nax bi door a door booy ku dul lebu doo dégg wax jooju bon nag démb moo jur tey may waxee ci turu doom ak jarbaat tudd naa léegi sama nijaay ju baax yàlla ko suñu boroom yóbbu si leer yu kawe bu ñu wax maire tey ci réew mi moom moo tax du xam lan mooy gëdd maire doomu Aïda Ndiaye jooju ak kur a Diène ñu bokk benn maam wala sama nijaay ji toog ci tam yaakaar naa tey am na rôle bu may joué bu mën a nijaay nag ndijaay la parce que Binta jaañ ak Ndey Samba Diagne ñoo bokk ndey ak bay Binta jaañ jur Absa Fall mu jur Caare mu jur ko Ndey Samba Diagne jur ab sa du Mbeng kon nag ndijaay la joo xamante ne forewuma ko sama ndijaay ah, maam maam saw dafa doon wax Ablaay pencam léegi bu baax amul ndijaay ba ko daaw bon nag sama lijaay maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama xel dem sama nijaay koo xamante ne ba ma daan xuus àll bi lëndëm ma ñeme fa moom moo taxoon ba daan am ab xaaxam ma koy dindi di jàll moom moo taxoon yàlla na ko suñu borom yërëm yóbbu ko si leer yu kawe mooy sama nijaay Massamba Mbengue muy ku baax taxoon ñu ñeme sama joreen di jaay sama maam jal samba ba doon ñëw si élégance ba ñëw wéer kan bi summi mbuba bi wekk ko si sama portemanteau yaay maam saw toog waxtaan ba ngoon mu ñibbi kooku mooy bàyyoog imam bii toog loolu mooy lépp bi bon nag doom jooju ak jarbaar jooju mooy wax il se met à la disposition de la communauté mais une communauté intégrée dans la République. Le rendez-vous du donner et de recevoir, avait dit le poète président Léopold Sédar Senghor. Enracinement et ouverture. Bon docteur oncle, je me mets à la disposition de la communauté. lépp lu ma mën a def pour que sama communauté taxaw danaa ko def bi ñu ma dénkee mbir ñëw sama communauté moo ma jàppale li ñu ma dénk ba ñu mën si am ab ba doon gàcce ñun ñoo si li bon nag maa ngi leen di remercier bu baax seen ñaan nangu na may wax maintenant si beneen kër di remercier le pays des cadres libres di leen remercier lu tax parce que je suis un fils du pays des cadres libres troisième laay def sama baay di jëlee stencil di si bind ñuy dem yenn si benn tool di fa dajeeg ñoom Alassane Dali Ndiaye ak képp koo xamante ne membre fondateur la du pays ma xool ko mu jur ko ma nekk si ba tey sama man Mansour Sarr mu ngi ni toog fekk na ko le PD cadre Lébou maa ngi leen di nuyu mais bu ma leen nuyoo ba pare damay boole ak nuyoo bi un concept important le concept de la responsabilité je crois que responsabilité boobu am nañ ko ñun ak yéen pour am taxawaay bu ñuy am pour dox une démarche scientifique avec ce que nous sommes en de faire wéeru ci coutume bi xamante ne ñoom ñoo ñuy jox fit ñoom ñoo ñu leeral suñu yoon bu ngeen gisee ma wax loolu dama wax ne rek fi ñu toog nii synthèse lañ fiy waxee nag. Euh, état ak li ñu ñu boo ma gisee may dox di dem ci état boo ma gisee may dox di dem politique boo ma gisee may dox di dem bu ma kenn laaj looy dox luy dooleel Macky Sall lay dox parce que nag wéet gore wéetalu ko gore loolu la ngeen ñu jàngal yéen suñuy maam loolu ngeen ñu jàngal yéen suñuy bàyyi loolu ngeen ñu jàngal yéen suñuy ndiyaay wet gore wetalu ko gore boo ma bënnoon tey deret ju marron beige mooy génn sama yaram parce dama bokk si ñi xamante ne ñoo xoox ak président ba ñu jël réew mi ba ñu jëlee réew mi ba léegi la ñu gis jar un million trois cent mille ñu ne ko fayal trois cent mille Macky Sall teg si million la machine gaal tey pêcheurs yëpp am nañu machine gaal je parle le contrôle du ministre Alioune Ndoye Yoff amul woon quai de pêche am na ko Soumbédioune ak quai de pêche am mën naa lim le nombre de quais de pêche réalisés pour la communauté lébu mën naa continuer si li ñu def dans le cadre de la République dans le cadre de l'investissement pour notre communauté bu ma waxee loolu nag dama wax ne def nañ lu bëree bëree bëri mais am na lu des li des loolu nag moo tax ñuy pencoo man ko organiser pour yóbbu ko fañ ko war a yóbbu pour que véritablement mu am une réponse loolu dafa am solo ñu wax le lébu naa jamais été un activiste lébu ku ko xam musul nekk activiste wax rek pour wax musul bof musul nekk mbiram day taxaw wax ak effectivement buur du contre buur mais buur da koy respecté je crois que saltige Mamadou Mbengue wax na ko léegi loolu nag il était important ku ñu yegg si ñun dañoo fier bu ñu jegee gra imam wax bu waxee ñu xam ne effectivement kilifa moo wax ak fit ak fayda ak daraja suñu di yaay ji grand sëriñ bu waxee ñu xam ne responsable moo wax koo xamante ne nit gën ko xam état si réew mi képp ku wax takk ndomb lébu dañu xam ne waxee nañ dignité fayda ak détermination may terminer nag da ñu ñaax ñun ñi xamante ne ñoo nekk si nguur ba pare nekk ay lébu bu nguur gi jeexee dañuy dellu si tefes gi di wax ak effectivement suñu bopp comme que da ñu ñaax nag am na droit ñaan leen da ñu ñaax am naa droit ñaan leen liñ leen di ñaan mooy am na luy ñëw ci kanam yàggatul am na luy ñëw ci kanam yàggatul am na luy ñëw ci kanam yàggatul yéen ñiy joxe baat njaboot gi di ko dégg war si dem ba ko defee nee leen suñuy doom ñu ngi si laa na ngaa naa naam ne fa bon de nee leen suñuy doom soxla nañ seeni doom dañ soxla bu seeni doom soxle bu leen leen xañ jox ñeneen loolu dafa am solo lool bon dëkk dama ne dama jow dem teeru Baye Sogi ba ma waxee loogu yaakaar naa ne waxin la waxin la il est temps que li ñu moom si yenn aspect itam pas seulement sur des questions du foncier seulement li ñu moom au plan institutionnel aussi bu ma ne moom aussi déggin la ñu taxaw jox ko suñuy doom loolu laa ne woon danaa ko terminer may terminer rek pour diir que rek topp mag doom topp bay nekk fii wooñu ma ñëw lépp lu ñu ma digal maa ngi si parce que Gonib Lebu noonu lay def actuellement Fra Yoff ñu juddu 61 ñoo nekk Freyio bu ñu génnee dans trois ans man mii damay nekk Freyio parce que génération ñooy dugg te Frey mooy dox nekk jeune di doxee lii ko coutume bi di sant bon nag nii lépp lu ñu ma dëggal rek maa ngi si tey maa ngi si ëllëg maa ngi si suba maa ngi si ngoon maa ngi si guddi bon nag loolu laa bëggoon wax maa ngi leen di remercier bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Thank you.